C'est une boisson punch. Ak. albégué monte fraîche. Cabinet Serine Touré. Bon produit à garabio yu dilis xaarkat bu mag bu nekk ci Kër Massar côté brioche dorée bi. House, meilleur partenaire pour votre body care, vente de produits cosmétiques situé aux HLM Grand Médine près de l'école Dior. Nyon lundi mai, may une série boutique lay ak korg. Seunit salaamaaleykum la chérie naa def. aleykum salaam soxna Astou maa ngi lay nuyu. maa ngi jégalu naaj bu tàng laa la nga wuyu. bàyyi daam jotali ma toogu. Astou bismillah. yaa ngi fàttaliku sunu xuloo naka nii daaw ci bis bi la. sëb mi kër gi. nekkite yaa fi gën a pànk. waaye yoon bi nga jël baax na. bul tegi sa tànk. ginnaaw lool dama la woo pour ñu waxtaan. ci mbirum pàate mi nga ma ne dafay doxaan laay sama xarit nga ñi ma ñaan si woon yow ci nga bokk waaye yàlla xam na ne sëylatuma paate xale yi ma fi bàyyi ëpp naa def astu say kaddu nii li nga wax ñaaw na te rafetlu ma say kaddu yi rusal li tup ko ci sa làmmiñ ba ci sey tuñ kérok bañ la yab sa bay daf la waxon nga sax ci muñ jotay bi nak mako sakku sàkku bëgg mu leer dara du laq was du ci sen diggante ba sey bi baña yaq suma sañon nak nga may mama wo paate mu tew ñu trouver solution ci mbir mi ginaaw nak mo la yew la chéri bay rek ma dem ëpp na def ñan na la ko ci barké wéru koor bi may mako way wa na ko da nga baax yaru tabé dégg ndigal do lek sa jëw asto ngi fi mën ngeen a ñëw yaay awa buuru këram keneen koo fi gis bësal jees e bay daam gaawal indil ma foofu ñaari sees paate toogal nii soxna alimatu na nga def e astu déglu ma xel li nga jiiñ kii da koy def laa yabewoo ma noonu de xanaa doone ma kii lay doxaan nga indi ko ci sama kanam non lii du dëgg astu xol dafa fragile xam nga ko te nit nga njuum te du wees te del jéggale jullit nga dëgg la pàtte mooy sa borom kër te boo sañoon doo ko bokk si ñeneen monogamie xëy bëggaat keneen faaw ñu jaloog li muy def neexu ko te it xam na ne neexul got kayit moo ko tënk mu ne ci lii mais ba ko nag dafa jot kilifa la te bëgg ne ndaw si bu sañoon sax da koy takk doxaan geeg bu dee àll bi astu xanaa bëggoon mu dakk laay fii kenn bëggul gis sa jëkkër muy doxaan mais moo signé woon monogamie kon na ko assumé man maa wujjoo ci boppam. eh astu bul waxee nii dimbal leen sa pàate mi du la indil ku lay sonal fii te xam na ji koy kii sunuy maam dañ daan yori soxna ñëpp juboo nii ay julit lañu dun ay nasaraan kon lu waral lii wujjatee gis sa jëkkër sa wet nga yaakaar ni gënul dara nekku ci. bokk wërsëg la tey paate bonnul jaamul yàlla ci sëb sëy asu bësal sa xol may ñu lii ngërëm ak yokkute nga ci am def ko nga xool baax na dinaa ko def ndax bëgg a sëy te sax nag dégg ndigalam lañ ma yebee woon waaye lañ signé woon nag est-ce que yoon dina ko ko may yaakaar naa ko de te pexe war na am xanaa ngornement bi war na sóor loolu itam wi sey isi, go ci gami ku gor ko signé bu ñu soppé xalaat te go ci warna mëna né xawma am naam amul leeruma waye dina gëss ci loolu te fay lu mëna né assemblée wote loi bobu dugal gami ci polygamy ku ñew signé ko dem ay julit lañu ko bëggul jabar yu bëri nga yam ci kenn yenn saay sax nga gis ku signé gami fofu soxna ci def ko atu diko ko du ñu wax ci loolu ki de musuma ko def lu ñaaw mi ngi ni mëna ma sédé waye comme li la bëgg bu mënee nek rek

c'est une boisson punch. Ak, tonal monte fraîche. Cabinet Serin Touré, Bon produit ak garab yo muccu délice rare lis xaarkat bu checker bu Massar côté brioche dorébi. bi. Alien House, meilleur partenaire pour votre body care, vente de produits cosmétiques situé aux HLM Grand Médine près de l'école Dior. Nyon leen di c'est une série boutique lay ak Korg. yeah.